gërëm ñeel na leen yéen ñi di réew mi tv li gën yi nag dañ koy door rek bi nga xamante ne rek doon nañ ko amal pour signer nag ñu delloowaat lii di wal fajri ab signalam mbir mu nu mel nekkoon na ab doon sàkku rek ñu jox ko ab licence am ci ñu mu gën a gaawee moom këru tasukaay xabaar bi ñu dippee wal fajri jamono ji nag média yu bëri rek daal dinañuy voté boobu lee mbir gis ne rek deltu ginnaaw dëgg la ci wàllum liberté de presse fii ci réew bu Sénégal bu dee démocratie nag moom waxaale wuñ ko ba tey rek la mu dal di xam ne la ñu daal di xam ne ci moomu leen mbir ginnaaw constat bi nga xamante ne rek daal dinañ koy def ci ñoom ñoo nekk en ligne ne ne nag ña ngay naqarlu bu baax boobu leen fois jiw nañ bu ñu dénk wàllum communication bi day sàkku rek ñu daal di dakkal signal bu wal fajri ba noppi rek daal di ña fay liggéey seen ak ak seen yelleef mbir mu nu mel waraloon rek ñu lancé ab pétition ginnaaw nag ba ëpp ci lu toll ci 200 signatures yoo xamante ne rek ay journalistes ñoom ñoo ko daal di def yooyu dee harcèlement nag ma ngi koy wéyandi bu baax ci boobu le këru tasu jumtukay euh, xabaar jamono ji nag appareil yi nga xamante ne rek daldi nañ ko ci dajale ak li nga xamante ne rek moom la gouvernement bi daldi def ñu fàttali leen mbir moo xamante rek dañoo trahir la te bu ñu muytu ne rek lii di démocratie nag mën na ko mën na fee jaaree yàqu bi nga xamante ne rek dal koy signé jamono ji kenn rek moom moo ko mën a dakkal mu nekk marche politique boo xamante ne rek jamono ji ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo nekk ci bopp nguur gi nag dañoo jël rek direction boo xamante ne rek du lool ndax ba histoire Sénégal sosoo ba nëga ni rek bu gën a deltu ginnaaw bu Macky Sall amul a yées ci kàddu yi nga xamante ne rek ñenn suñu nattango journaliste dinañ koy wan ginnaaw bu ñu seen dooleeg seen lépp teg ko ci bërëb bu tasukaay xabaar bee jamono ji nag li nga xamante ne rek danañ koy sàkku mooy ab liberté ci nu mu gën a gaaw waaye nag signataires yi nga xamante ne rek moom moo ñeel yooyu les pétitions ña ngi cay naqarlu ak am soutien bu baax nag ci suñu nattangoy journaliste ak suñu nattangoy ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo fa nekk di sàkku ci nu mu a gaawee nag bi nga xamante ne rek mu ngi koy teg ñenn ci journaliste yi nga xamante ne rek ñu ngi ci biir Sénégal jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification ngir amaat yeneen info